damay ñëw ci combat bu mujj bi ndax combat boo bëri na coow ba ki démb maa ngi ci nuyu waa fm GFM euh, ñoo ko tëgg ci diggante guy gi ak ki nga xamante ni mooy rëgg rëgg euh, ñu koy félicité di ko encouragé gis nañ ko euh, làmb ja mu mujjoon def mujj cee jëlee ñàkk waaye di ko wax ne sport noonu la ñun Sénégal bëgg nañu sport waaye mënuñu sport ndax ñun ni ñuy sport mooy chaque jour ndam. ak kii daan rek mais saa bu ñu daanoo ñu ne cuuna la te dafa yaafus te làmb du noonu muy bëgg ki nga xamante ni mooy guy guy gi nag ndaanaan bu nekk guy gi daje na moom xale yi gën a ës wala ñi gën a të guy gi jëflante na ak ñoom waaye defe daje koo xamante ni mooy rëgg mu nekk xale bi xam te bi mu ñëwee yàggul waaye képp koo xamante ne ngay seetaan làmb xam nga koy naka nga gisee boobu làmb. ñoom ñaar tey ma wax la loo mës sa dëgg xanaa xamul ne guy gi maamam champion la. waaw xam nga koy maamam. Cheikh Thiénaba moo fital jiyaar xare Samba Sadio ne àll ba alluwa allahu akbar xam nga ne kon 1895 la maamam tëdd foofu Cheikh Thiénaba maamam dans mille euh, mille sept cent quatre cinq la fital euh, euh, Samba Sadio da da daan wax naan ñi ñi ma àndal ñëpp dañuy sangu Thiénaba sol euh, euh, euh, seen seen seen yére perkal nga xam ne foo daanoo fa lañ lay gas suul la kon kooku maamam champion la ba pare nag mu wane ci làmb ne len dong day la na ba bëggul fecc way waaye leneen lu lu lu lu jóg xare war ca am rek ñu def ci seen pasir Reug Reug nag doon na mu bëri ñaari yoon moomit it euh, bugguma maamam mi jur baayam mbër la Modou Kan maamam mi jur papa mbër la nga fàttaliku nag mbër ya newoon caaro yi ñoom Sambay Fall ñoom Sambay Sall ñoom Ablaye Diouf Fall ñoom Ray Chigar ñoom Ndata Sambarga papa Njaate Njaay maamam moo jur yaayam moom Reug Reug ki jur yaayam champion la ki jur papam champion la nga xam ne kon dafa doon lu mbëri ci ndey ak baay muy combat boo xam ne nag combat bu doy waar la parce que xam lu tax Reug Reug dafa dem ba dandalem ba pat yi ndaanaan yi fi nekk yëpp mu daan leen te kenn ku ci ne façon ba mu lay daane bokkul ak ba muy daane sa morom ba guy gi di ko xam ne lu mu ron mu jóg lu mu ron moom heure bu jàppee. bu bopp bi duggee jeex na. moom ak bëre boo mënti am yàllaa ko defal loolu. Mm-hmm. Euh, muy combat boo xam ne nag ñoom ñaar ku ci daanu rek du pertement parce que Reug Reug dara du ko tee dem mm-hmm. Reug Reug bu daanee bu guy gi na waa Pikine am problème waa pikin nañ am problème trop. Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang kenn ku ci nekk di nga am problème. Ah, ci nan la ñuy amee problème guy gi lay ba. bu bëree guy gi dama bu daanee guy gi laa wax ñoom ñëpp dinañ am problème parce que seen kaw la jëm si. seen jàmm seen jàmm day jeex. si ci kawam la jëm si ci kawam la jëm si ci ñoo ñëpp ñoo ñëpp rëg-rëg na day ñoom guy gi dafay mbër moo xam ne a koo natt parce que day këpp yalwaan ni nit da ngay yalwaan ba woomle mu dikk mu dikk këpp yalwaan yëpp ji bu jatee ba ñëw ji nga jat boobu muy jat noonu dem naa cene ba laajte ñu ne ma loolu muy jat ma ne ko ah, mu ne boo ko jatee ba pare boo bo bo boo laxasoo garab boo ko buddee ren yi génn barke yonent bi wala ñu ngi ma ko waxee ci cene ba na ma na ma na ma jatoo muy jat boo ko jotee ba pare laxasu garab boo fuddoo reen yi génn kon nga xam ne kon kooku lo dafa am lu mu àndal moo tax muy combat boo xam ne nag eh, et puis eh, ñu baax tegu ko itam mm, ndax eh, lépp lu jóge ci Youssou suñu jarbaat la ba pare nag bëgg aar parce que mënoon naa téye xaalisam bañ koo dugal ci làmb ndax mi ngi teraanga il fait mu ngi ak rajo ak télévision waaye bu dee dugal alalam ci lam pour jàppale waa làmb tax